Cheikh Tall maa ngi lay nuyu. waaw maa lay sant di nga nekk président bu fédération nationale des opérateurs privés stockeurs transporteurs zone centre euh, ci région bu Fatick Kaolack Kaffrine et Tambacounda fi ñu toll nii nag naka ngeen di préparer campagne agricole bi. waaw comme daa heure bi moom képp kuy opérateur semencier yaa ci waajaayu campagne bi waajaay bi nag day nekk loo xam ne dañ koy def. ci anam comme ni ñu ko doon defee mais bi nag anam spécial ndax te dafa am ay manquement yu si am ndax li si li si gën ràññee nag muy manquement manqué ma xaalis wax dëgg fa yàlla kat addina xaalis dafa sooxe ndax banque yi financé wu gouvernement bi fayam tamit dafa sooxe lool lool lool ndax am na ay actes yu ñu teg la yoo xam ne dañoo opérateur semence bi. Mhm. Euh, maanaam da nga bëgg a wax fi ñu toll nii campagne bi seen côté daf ne tekk tekaaral parce que xaalis amul. loolu nga ñu bëgg a wax ñu ngi ci waajaay nag ci suñ def na lu bare bare bare bari ndax mm-hmm. ñàkkam xaalis mm-hmm. léegi ñu ñëw si bor bi nga xam ne état daf leen ko amal naka la leen état amalee xaalis boobu boobule ñu ngi wax ay quarante et un milliards am na lu ñu waroon fay ñu ko expliquer ñu carrément naka la demee waaw ndaxte euh, quarante et quelques milliards la ñu waxoon quarante et milliards yi euh, premier ministre dafa waxoon du six diggante le six ba le dix dinañ ko fay léegi nag ku ne xam ne tey jii la euh, tey jii la treize waaye nag ci information xibaar yi ñu jot am moo di àjjuma bi paase àjjuma bi paase dugal leen bu seize milliards xibaar bi ñu am amaguñ si lu leer sax dañu ne seize milliards dugal nañ ko xëy na tey jii altine ji dañ dugalaat waaye daal li wóor moo di ci compte yi daal ñëwagul kon nag njort nañ ni xay na ci biir semaine bi ñu dañ ko fay incha allah. Euh, état daf leen amee loon euh, quarante et un milliards quarante et milliards yooyu naka la leen ko état bi amee ameelee si régime bi passé la wala naka la bor la waaw régime passé ndax bu ñu waxee bu ñu wax deux mille vingt et un ak deux bi ko tey moom li état moom li ñu amee la gum lépp ci lu passé ci régime bi passé la ndax mooy deux mille vingt et deux vingt trois ak campagne deux mille vingt trois deux xam ne moom milliards. léegi état dafa engagé wu ne dina fay bor bi est-ce que yéen jàpp ngeen état mën na fay bor bi en un coup maanaam fay 41 milliards yi. Euh, léegi waaw loolu moom premier ministre boobu jël moom bu ko waxee wax dëgg yàlla dañ ciy lool lool lool de allah dinañ ko fay 44 milliards yi moom kay xanaa 100 milliards yi bi leneen di def la ñuy wax. léegi euh, cent cent milliards yi maanaam. moom ñoom dañ ne dañ koy saytu. Hmm. laata ñu koy commencé xëy. Uh, tey jii uh, Cheikh boo ñu doon wax si yaatal jafe-jafe yi nga xam ni yéen dañ ngeen koy faral uh, di jànkonteel. waaw mooy jafe-jafe ji moom li su ëpp li su ëpp ci suñ suñ jafe-jafe xaalis la ndax booy yow même semence très basée boo koy jënd xaalis la parce que mooy semence yi cher engrais bi xaalis la banque yi ay xaalis pour que pour nga respecté nga pour nga euh, honoré ay engagement pour que ñu mën laa lebal et cetera et donc ñu xaalis mooy mooy li nga xam ne moom moo ñu ëpp solo moom su manqué rek day daal di sookeel liggéey bi fu nekk nag xaalis moo manqué. kon bu weesoo xaalis amoo leen beneen jafe-jafe. boo xam ne bëggoon ngeen autorité yi taxaw si yeneen jafe-jafe yi waaw ndax tey jii yow soo amee producteur nga jox ko gerte nga jox ko jiw jox ko engrais waxtu jot mu war laa jox gerte bi da nga ko war a fay xam kon ni kon xaalis mën naa tax ba gerte gi sooke xaalis daal maanaam yeneen problème yi am na mais xaalis moom am xaalis mën naa ne moo ko waral te manqué xaalis boobu lan moo ko waral exactement état bi du fay à temps wala banque yi wala lan amul xaalis état moo ñàkk respecté engagement moo amul xaalis léegi banque yi jafe-jafe ngeen fay am si côté banque yi surtout parce que sànq maa ngi dégg ko banque yi suñu lebalee tànk fayoo leen duñ leen mën a lebalaat su ko defee affaire dafay taxaw banque bi ren campagne bi nekk nii campagne commercialisation ak campagne bi yu mag yi def ci semence bi yëpp joxuñu kenn leen dërëm ma yëg daanaka xëy nañ ñeneen ñu ci waaye lu su ëpp est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun si mesure yi nga xam ne premier ministre annoncé na ko pour campagne agricole bi nekk campagne bu baax waaw mesure yi am na li ci jot a wax ñun bokk na ci ne mooy fay bi boo xam ne ak dix six ou dinañ fay waaye ak ñot na ne incha allah kon xëy na semaine bi ak dina am le dix na waaye ñot nañ ne incha allah euh, semaine bi dinañ ko fay beneen mesure bi moo di beneen bor bu mag bi saytu bu ñu ko saytoo incha allah dinañ si ñu fay ko beneen bi moo am na ay mesures ñoom yuñ jël pour que jiw bi egg ci baykat bi mooy ay porte de défense ñi nga ak yu mel force de défense et de sécurité bi mosuñu woon ñàkk ministère de amoon na fa am na colonel dafa nekkoon ak ay agent tey na kay fu mu nekk nii dañ koy gën ndax dañ ko jox ak jumtuwaay gën a jox personnel pour que mu gën a taxawu ci joxe jiw bi ñun loolu génne wuñu ndaxte euh, ñoom na danañ def ay euh, seet yi bu jógee benn point wala benn commission bu am problème wala bu ñu yaakaar ne am na am problème ñoom dañ fa doon dem di seet xëy na bi tax dañuy gën a tasaaroo ci réew mi léegi yow lan ngay ñaax autorité yu bees yi pour ñu def ko pour campagne agricole su jotee ngeen bañ a am benn jafe-jafe. moo di campagne comme ni ñu defee nii comme conseil interministériel li ñu koy war di gën a teel a def xëy na tamit dañuy yéex a ñëw moo tax beneen bi nga a ñëw waaye tamit ñu gën a teel waxtaan ak acteurs yi waxtaan acteurs yi ñuy kenn ku nekk ñu wax leen ñu wax leen seen jàngoro. ñoom xam ko ñoom noté a hmm. dañuy wax souvent ci euh, aussi mesure bi nga xam ne état jël na ko maanaam euh, semence bi armée bi di ko di ko di ko séddale yow naka nga gisee mesure boobu waa encore une fois armée bi siddaliwut waaw armée bi day encadré day xool rek semence bi ñu demee ndax jaar na yoon ndax jaaru yoon waaye nekkul ne day toog di bind téye dëkk li dén ñuy encadré xool boo bokk ci commission bi lii moo tax loolu nag ñu nee naa la wax naa la léegi neen ñoom naka jëkk armée bi ba sonn ci xëy na euh, moyens yi ak personnel bi ci war dëgg dëgg ndax li fi point yi war joxe jiw ay téeméeri téeméeri téeméeri points Sénégal yëpp loolu amuñ ko woon xëy na dinañ joxee moyens yi nag dinañ gën a saytu yëf yi gën a mën ko taxaw Mhm. donc gis nga ni daal loolu lu rafet la mais souvent dañuy wax ni mbay mooy tax réew mën a mën a suqaliku aussi dund gi cher na euh, dañuy wax ni sax bu fekkoon li ñuy dundee dinañ ko euh, bay euh, peut-être dund gi du chere noonu pour yow lan moo mën a suqali mbay mi ba li ñuy dundee fii ci senegal ñu koy bay fii ci senegal waaw xam nga mbay dafa am solo lool ci réew mbay nit moom souveraineté moom bala bi war njëkk. Mhm. mooy souveraineté alimentaire. nga bay looy dundee di dundee li ngay bay xam nga loolu dafa am solo trop moo tax nag comme di comme institut Sénégal recherche bi nga xam ne mooy institut bi nga xam ne mooy kii ci affaire jiw yi nga xam ne jiw yi moo koy defar jiw yu baax yi moo koy def de kii kooku lañ ko war a gën a doole mooy ISRA ak suuf si am na suuf si Sénégal suuf si suuf si dafa xaw a dee. Mhm. daal di ñuy def ay phosphatage ak ak yu mel noonu. xam nga yooyu yëpp maanaam mbay mi daal dafa dañ ko war a gën a dooleel ñoom nag ni ñu taxawee nguur gu bees bi le président Diomaye ak premier ministre ñëwul na ko ndaxte bi ñu bi ñu fekk xeex rek dañ koy def cent vingt tey jii looy jeexalee appel booy lancé président Diomaye parce que nekk na koo xam ni wàllu mbay euh, soxal na ko xam na ko aussi. waaw moom sagam moom doomu seen xaram daal doomu béykat la moom moom sa béykat la hmm. kon moom loo xam ne man dégg naa boo moom daal na béy kon xam tax man ñu jël individu ñu gën a mën a taxaw yokk jiw a mën a béykat loolu ñu ngi kon euh, Cheikh Tall ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci disponibilité bi ak nangoo tontu bi nga nangoo tontu suñuy laaj jërëjëf voilà ñuy fàttali ni Cheikh Tall yow yaay président de fédération nationale des opérateurs privés et stockeurs transporteurs zone euh, centre bi dajale région yu Fatick Kaolack Kaffrine ak Tambacounda jërëjëf Cheikh